Diomaye Faye ba euh, Ousmane Sonko a été reçu par euh, le le président maître Abdoulaye Wade mais Karim lu ko tere ñibbisi ci réewum Sénégal moi c'est ça mon interrogation PDS lu mu defar defarwaat defarwaat comme tous les autres partis politiques parce que dañ toll moment boo xamee ne yaa ngi wax PDS mais yeneen am na yeneen partis politiques yoo xamee ne seen survie politique mu ngi defa mu ngi dépendre si ñu defarwaat AFP ci la bokk parti socialiste je pense que du yàgg ñu def benn congrès wala yu ni mel parce que il faut que mu am benn rajeunissement parce que fii ñu toll nii muy parti socialiste di AFP di PDS di yeneen parti PDS le président Abdoulaye Wade a compris boo xoolee staff bi ko wër ci lu jëm ci ay communication yooyu il a pris presque des jeunes ñoo xamee ni. bokkul ak euh, suñu euh, yenn âge suñu yenn papi yu ci mel ni euh, président Doudou Wade nga xamee ni ba léegi reste au PDS il a un une un rôle éminemment important mais de plus en plus ñu ngi jël jeunes yi di leen jiital les autres partis doivent également suivre mais pour que yeneen parti wala pour que parti démocratique sénégalais comme tous les autres partis puissent suivre il faut un rajeunissement parce que dafa am une réalité aujourd'hui boo xamee ni le duo Sonko Diomaye dañ ko wane mooy ndaw moom mooy mooy jiitu ndaw ngay jiital peut-être fougue de jeunesse a ngi ci waaye tamit am na ñu réflexion de plus en plus am nañu euh, taxawaay boo xamee ne faw nga jël ay ndaw jiital leen gën leen a dooleel ba nga xamee ni la ngay wut ci sa euh, euh, parti peut-être ci wàllu longévité di nga ko mën a am mais sur le cas PDS moom tant que réglé wuñu le cas retouru Karim Wade pour man le PDS nit ñi ñoom ñooy dem ba doot ñu ko duñ ko euh, teg fu ñu ko war a teg alors que c'est en partie boo xamee ni qui a encore euh, euh de beaux jours devant devant lui ni ñu ko mën a waxee mais nag à condition que ñu mën a xam au moins fan lañ jëm te pour loolu moom foog waa ji ñëw sama sama xalaat. xalaat ñuy tàmb avant ñuy tàmb